sport collectif la looloo tax ñu amoon yaakaar nit ñi danañ ñëw waaye euh, bu ñu ñëwee danañ leen xool balaa balaa coupe du monde bi parce que buñ ca jógee dootuñu am match amical. non tiitalu ma waaw tiitalu ma parce que euh, am nañ ci ay exemple Bouna Sarr bi muy ñëw Coupe d'Afrique lu ne wax nañ ñu ko euh, Nampalys Mendy même chose parce que ñu koy waxee ci tubaab mooy couteau à double tranchant la xëy na au début mën na am jafe-jafe waaye day am fraîcheur boo xam ne ñeneen ñi amuñu ko bu compétition bi continuer entre temps dana am compétition ba pare fraîcheur am dana tax mu mën a def prestation yu mel ni par exemple match bi euh, compétition yi nga xam ni Nampalis def na ko ci ci coupe coupe coupe d'Afrique bi ak ci coupe du monde bi dana tax nga ku mel ni Bouna Sarr amul woon temps de jeu waaye bi ñu continuer compétition bi jot na compétitivité ba pare am na fraîcheur waaw côté droit bi am na ñu fa indi euh, li ma jàpp mooy comme dafa leen bëgg xool nañ ko bàyyi mu xool leen ci terrain parce que joueur mënoo ko euh, euh, juger te te gisaguloo ko xam nga nag gaañu gaañu ak football moo ànd comme ni mu ko waxee fii ñu toll nii situation bii xëy na du bokk ak situation mois de novembre ci diggante bi mën na am ñoo xam ni danañ ci am temps de ñaanu ñu yàlla waaye même ay gaañu gaañu mën na ci am donc nañ bàyyi terrain bi terrain bi dana wax boppam. votre point de vue sur ce championnat local Diallo, au Sénégal Diallo, il répondra à cette question plus tard mais pas aujourd'hui maintenant si vous plaît votre question de mémoire on va gérer ça plus tard ça c'est une conférence de presse. wóor ah. laajal sa laaj ci wolof s'il vous plaît. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah monsieur Binous mooy wax ak yow na la benn question bu pertinent te kenn waxu si tey muy euh, ñoo si xam naa d'accord naa lépp ay si gi ne yàgg naa si ça fait trois ans tey parce que xam nga donc gis nañ li muy def fële du côté de Tanzanie man bi ma koy gisee mu yor trophée bi 60 000 places dama yaakaar ne Vélodrome la je me suis kii moom mérite nañu woo ko donc te mënuñu convaincre ñëpp boo woowee kii Demba Seck woo c'est pas moi euh, Nicolas Jackson mais Demba Seck laa xaar woon pas tellement xam nga te samay su ma waxul Soufiane Diop dañ may mere donc dossier Soufiane Diop fa la toll foofu loolu rek laa amoon may wax. ok waaw monsieur monsieur binationaux euh, comme ni ma ko waxee rek je pense que Ousmane jour boo xam ne xam nañ ko euh, gis nañu performance am Tanzanie. mais comme ma ko waxee rek c'est un choix sportif voilà et que que j'assume pleinement voilà que entre Ismaïla Sarr euh, Nicolas Jackson qui joue à Villarreal euh, Crépin Diatta qui joue à Monaco qui joue la Champions League c'est un choix du moment voilà et ça je l'assume totalement voilà c'est mon choix c'est un choix sportif voilà, donc euh, mais je crois que lu gën a solo surtout Mohamed mooy ñu wax ci ñii nga xam ne. jóge fi voilà parce que bu ñu naree wax tout le temps si ñan ñoo fi nekkul conférence de presse bi duñ ci génn comme ni ma ko waxee rek kuy tànn mooy éliminé waaw su ma mënoon jël tey 60 joueurs indi leen dinaa jël 60 mais tey boo xoolee constitution équipe bi boo xoolee est constitution bi nga xam ne tamit ñan ñoo fi nekk tamit mérité nañ seen place autant que Ousmane Sakho donc comme je l'ai rek na continuer di. ma continuer di liggéey parce que yaa ngi jox exemple Ousmane Sakho mais man mën naa la jox exemple yeneen joueurs yoo xam ne autant que Ousmane Sakho mérité nañu nekk ci biir équipe bi mais yàlla dafa def ni que nag waaw vingt neuf joueurs rek laa am droit a ma droit jël plus que ça donc bañ a jël Ousmane Sakho du euh, benn discrimination par rapport au football euh, africain au football continental ou non non ça n'a rien à voir Mais comme je suis en train de dire, c'est le choix du mois de, du mois de septembre. Ce choix du mois de septembre, peut-être que peut évoluer tamit au mois de novembre. Donc, c'est que ça. Sofiane Diop, tu m'as dit Oui, mais nous sommes ligués. Après, comme je le dirais, je le, je le dis et je le répète, on courra derrière personne. Donc, il faut que nous l'air, Mohamed. Souvent, je me dis, c'est là et mais par moment, il faut qu'arrêter, boy. Attends. Non, tu es. C'est l'équipe nationale du Sénégal, quoi. idée. Donc c'est important tamit nga valoriser ñu fi nekk. voilà loolu rek laa amoon lu may wax si loolu c'est bien que nga dem génneel ma ay pépites je sais que t'es t'es, t'es très bien réseauté mais comprends aussi que am na ñoo xam ne ñu ngi fii ñu ngi def ay jaloore bu leen éliminer yow ak Grégoire parce que Grégoire bu nee nu mu tudd après coupe du monde bi trente et un yëpp dañuy génn mais loolu c'est discrimination sur l'âge amul sens kenn mënul xam après coupe du monde bi ce qui va se passer nga comprendre mais en tout cas réalité bi mooy que on a une équipe compétitive c'est vrai mais l'équipe ne doit pas continuer à à dormir sur ses lauriers on doit l'ouvrir c'est ce qu'on a fait on a amené quand même sept joueurs dans cette équipe là on peut pas amener dix joueurs ou vingt joueurs Mohamed tu es d'accord voilà mais nag waxal ci gars yi nekk fii tamit c'est important merci ah. Alors, ah, parce que d'habitude, tu parles seulement que des joueurs qu'on n'a pas amenés. Mais c'est bien, je te remercie. Mais sache que, avant que tu m'en parles, on y travaille déjà. D'accord voilà. Ok. Euh, jërë ngeen jëf euh, bu baax euh, ñu ngi leen di remercier si seen teewaay bi fii si conférence de presse bi di leen di fàttali rek surtout suma sœur Savané ne ko bu ñu sañoon dinañ jox kaddu gi ñëpp ñu ñëw. waaye contrainte bi ñu am moo tax malheureusement munuy jox kàddu bi ñëpp alors alors léegi ñu euh, maa ngi leen di rappeler également que cet après-midi cet après-midi dina am une cérémonie de présentation de trophées ici le trophée par l'équipe nationale. j'espère que, j'espère que, les rédactions vont chercher les visas et les billets pour que vous venez à Orléans. <laughs> Parce que aimer l'équipe, mhm. Mhm. c'est pas seulement en conférence de presse. Mhm. Aimer l'équipe, c'est derrière l'équipe. J'espère que je vous verrai en Autriche et je vous verrai en France. Li ngeen di wax, wane j'espère que je vous verrai. Exactement. Pardon